loolu kenn ma su ko gis sama maam ñëw nag ni ma waa lu xew ma ne ko dama lay rey <laughs> mu ni ma koo bañ a def <laughs> parce que da ma ne ko nan mu ni ma dem tuubali góor gi <laughs> ma ne ko yàlla na nga wow koŋ day sànn mu dem nag tuubali góor gi ma dem seeti sëñ Babacar di ko nuyu noonu mu ni ma xanaa yaa gisee ak sa maam ma ni ko waaw parce que sama maam baaxul mu ni ma dafa xër ci wax nag te mu ni ma xër ci wax baaxul ndeysaan waaye mujj na ci génn féréw ma ni ko nag àdduna du noonu parce que kilifa it kilifa la ne nee ñu ko yilif sa ci say moroom lu mat junni booy bootu ko ndeysaan waaye ci li ci génne génn ci wérit ah man loolu dama ko daan def am na sama nijaay joo xam ne noonu laa ko def te ñoo bokk ca Saloum waaye dama xëy rek yónni Chérif Aïdara ak Tafal neen dem leen jëli ko ca deux heures et demie du matin ñu fekk ko rek moo taraxlaayu ñu neen ko indi ma font ma la la jëme waaye que ma ne na ñoo xam ne kenn du leen teg dara ci seen der parce que mën na indi guerre civile mu ne ma do waxuma ne ni dootuma ko wax waaye dootuma génn sama néeg xam nga shérif ni mu tànge woon rek tabarkalla tabarkalla jël bàyyi ji ba mu jeex Chérif Bachir bu Casamance Chérif Bachir bu Casamance wala yu piir la woon ndeysaan attaché ci doom bi ba nga ni lii lu mu doon xañ ko boppam jox ko sëñ Babacar si ndeysaan kenn mësul gis lu mel noonu sëñ Babacar ni ma manit sama bopp doyuma ci dal di ko yëkkati rek jox ma ma amee ko ak Sidi Habib ndeysaan mais sëñ Babacar ma wax ci làmmiñam ni ma wilaayaam kenn weddiwu ko lay ndeysaan Chérif Bachir Chérif Boubacar ak Chérif Makki ndeysaan ñoom ñett ku ci gën sa morom nga ni kii moo tax affaire u Casamance bi góor gi Babacar Diom njaxeer feebar ba ci mujj feebar ga Abdou Aziz dem seeti ko ma di ko waxal Cheikh ko gis naa sëñ Babacar ci gént mu wax ni na dëgg tànkam rek Casamance ak Sénégal oriental bu ko dee def pour cinq minutes sax na ko def des ne ko baax na ma ne ko baax na ma ne ko baax na ma ne ko baax na tabarkalla tabarkalla waaye rek man naam yàlla def jàmm man naam yàlla def jàmm waaw man naa yàlla def jàmm man naa am yàlla def jàmm man naa yàlla def jàmm waaye boroom xel yëpp dañu ne rekk nañu yokk ñaan yi borom xel yëpp loolu la ñu wax kon nag bu yokk ñaan yi tabarkalla waaye nit nitu yàlla piir lañu ak Cerno Mouhamed Fodé ñoom ay aktab lañu sax yàlla xam na ko moom itam foofa la nekk ndeysaan kooku yéemu la jàngal naa leen leetaram fii wallaay bi ma bindee bi soxna si gaaño mu ni ma sëñ Babacar a ngi soog a gaañu waaw ma def ko ci leetar bi te xam na dëgg ndax xam nga sama sëriñ Mame Lo ku attaché ci sëriñ Babacar la waaye bi góor gi gaañoo jooyu ko waaye bi soxnaa su gaañoo jooy na ko ma ni ko lu tax mu ni ma góor gaa ngi soog a dem ma ma ko ci làmmiñam tabarkalla tabarkalla tabarkal la góor gi ëmët la wax moom itam xam nga soxna Astu daf ma wax ni ma booba ñaari fan a ko dese ci àdduna ñaari fan mu ni ma waay Cheikh ma ni ko amoon ni waay bu ma bu ma bu ma soril sa papa waay ah, loolu ajuwul ci man de mu ni ma fu nag ma ni ko ci mag waaye ajuwul ci man ma ni ko loolu ñoom ñoo ko mën a décider waaye man man ma ko décider man nag man naa lenn am na benn pàkk bu nekk fa la xaw sore tuuti ma def la foofu mu ni ma mukk kon damay sori góor gi bàyyi ma rek ñu denc ma ci biir ma ne kooku nag sañu ma ko waaw ma bàyyi ma ne ko kenn rek laa xam ne bu fi jógoon tey ma defal ko ko muy soxnaa su sekk mi jur Mansour si te moom laa def waaw billaahi maa ko ma ne ko bu fi jóge woon tey ma suul ko ci biir jàkk ci waaw moo tax bañ ma téléphoné ma sonoo ngi ñëw sonaa tuse ku yónni ci yow ma xaar ko mu ñëw ma jigéen ja nee na nga bàyyi ko xel ndax sore na fa mu nekk li ko baax na ci ëllëg si ñu ma dog na ma daal di fabu rek dem Tiwaawan falaa fekk la jàpp du sax mu ni jox leen ko Cheikh mu julee ko moo gën ndax itam nag moom la dénkoon boppam waaw naka lañ ko jullee ba noppi ñu ni ma defe naa defe naa moom source mu ko jëkk wax ni ma yónnee naa ci sëg ya ba ñu gasal ko ba noppi mën na ko nañ ko suul mën na ko fii laa koy def ci jàkka ji waaw moo tax mu mujj ko def ca jàkka ji waaye loolu nag sañ naa ko foofu waaye sañu ma ko ci asukat mukk waaw loolu moo tax góor gi amat lu daal di ànd ak ña mu àndal ñëw ni ma daal ñun dafa am lu nu xalaat soxna si mooy sunu ndeyu daara ñu doon la yëgal rek ni daana def ci wetu góor gi mu jeex tàkk ni sañ ngeen ko waaye man sañu ko seetal loolu moo tax nit ñi war nañu xàmmee waaw war nañu xàmmee nag waaw war nañu xàmmee am na yoo xam ni daal buñ ko xàmmewul de rek baaxul baaxul de mukk baaxul de dañ ko xàmmee nag xàmmee baax na te it lu ko jarul jaru ko waaye xàmmee baax na de na bu ko rek man ma toog foofu toog foofu rek toog foofu en tout cas moo ma jur waaye du tax ma yóbbu ko foofu ci biir raw du sëñ Babacar si mukk waaye bu dee su sekk nag ma yóbbu ko fa waaw loolu mooy li nekk ba tax na yooy it nit ñi nañ ko xàmmee nañ ko xàmmee bu baax a baax nit ñi nañ ko xàmmee nañ ko xàmmee bu baax a baax tabarkalla tabarkalla baax na de yooyu de baax na lay ndeysaan wax na de yooyu yëpp nag yéen ko moom te yëpp yéen ko moom tabarkalla tabarkalla waaye itam dafa am lu ma seet seetlu ci góor gi soppeem yaa ngi fi du ñuy jeex waaye bàyyi na xel daayira bi nag bàyyi na xel daayira bi maa ko xam ndax boobu ba tey ci li ma yëg ku leen song rek song na ko waaw maa ko yëg maa ko yëg loolu mooy li ci nekk parce que nag caaxaane ko mukk caaxaane ko dëgg-dëgg caaxaane ko ah laay man mi nga xam ne daanaka gaw ma dara bu dul woon loolu ba tey tas naa daayira bi sama yoon nekku ci waaye naka laa xam ne moo ko laalee rek mu dal ci sama kaw ba bàyyi noonu rek di raay ak di raayaat di raay rek ak di raayaat ndeysaan sama benn mbokk taalibe nettaliwuma leen ko yal nu ko yàlla xajjal dafa am soxnaam bu gaañu yàlla ko dogal waaw soxna sa nag moom ku dul kenn xamul ku ko gën ci kaw suuf amul mukk ndeysaan ñëpp nag ni moom du yendu kii daa dee rek waaye jabar ji ni mu baaxee sëñ Babacar nii ji moom day dañ ko woo rek mu ñëw ndax rek lu ko may dana gaañ boppam ndeysaan ñu woo ko mu ñëw nag sëñ Babacar di ko yedd di ko yedd di ko yedd mu tëtij mu yadd yedd yedd mu tëtij mu ne ma yóbbul sa néeg waxtaan ak moom ma ne ko ay ci ma ñëw jël ko rek ñu dem ca néeg ba ñu commencé waxtaan rekk ma it ma mel ni dama ko songu ma ni ko yow li nga xalaat ci sa soxna mënatul dellu si ma ne ko ndax yu ndaw ndawaan yi mu lay defal rek tax ngay xam ci kaw nii Eh, tuuti mu dee ma ko du dara nag ma ne ko ah, da xam lu tax yàlla yóbbu ko man naam dafay préparé ji sa kër ba defee toog fa xaar la wax ko lu mel na xeme nag li ko yu ndaw ndawaan rek mu di la raxasal sa tànk yu mel noonu rek ma ne ko sa gor du def loolu góor gu jigéen du raxasal kenn tànkam baaxul ndeysaan mu jur rek mu jàpp ci yàlla xam ne yàlla muy moom moom ñëpp ndeysaan xam ne yàlla rek moom moom ñëpp nag tabarkal tabarkal yooyu moom rek a fi nekk di ay école daara daara daara noonu la mel bu ko defee rek bu ci ne ñu def ko leçon rek tabax ca dara waaye ñàkk tabax baaxul lu ci ne ñu def ko leçon tabax ca dara tabax ca dara tabax ca dara moo gën wax naa leen ko dama jël euh, euh, toolu gerte am ci juróom-ñaari junni mu mel ne xaalis bi ci àdduna la am ca déwén sama ma doublé ko ba ko ñetteel ma ne damay damay jënd gerte dem di jënd ba di ko préparé am mag ñu ko yëg ni nañ ko wax papaam bu mu fi jënd gerte mukk nañ ko wax papaam ba daal dem ci sëñ Babacar ni ko abal ma sa kër gi mu ne ma lan la ma ne ko damay jënd gerte mu abal ma kër ga waaw waaye mujj na fa la ñuy ataaya ñoom ñëpp ña doon wax ak waxaat yàlla ak sama jënd benn voiture bu jógee Gambie ñu indi ko ñu ni yee mu ngi jënd oto nañ ko wax papaam pour mu wax ko bu mu ko dawal ndax loolu yee pap maamam ni mu toll yee maamam kay nangam nangam maamam mu dem di dawal oto nañ ko wax papam ñu ni nag waaw papaam dafay dem tool bu demee tool ba ñëw rek ñu wut diw ak diw ak diw ñu dem seet ko ni ko tijaan yi dafay dawal oto nangam nangam ñu ni waaw nañ def noonu waaye waaye dañuy bàyyi ba mu jógee toole ñu ñëw doy déy ma ko ma jël oto ba rek ñëw eh, yi ca buntu kër ga ne fekk góor gaa ngi génn war a dem tool yi ma ni ko dugal fii moo fi ngay dug ma ni ko parce que kii kenn du ci dugg espèce su benn benn yi nga xam ne am na ñaar téeméer di ci dugg ma ne ko dugal ci bii mo gën mu dugg rek ma kondir ko ba ca tool ya. mag ñani woon dañuy boole ñëw naan ma ay way lii baax na ci kat <laughs> lii baax na ci kat man leen ah waaw yéen itam àdduna du noonu àdduna du noonu parce que nit itam da nga koy bàyyi ci sell te xolam rek moo gën waaye li nu daj nit dootu ko daj mukk ndax rekk yu mel noonu incompréhension moo tax foog ngeen foog rekk xam seen bopp foog ngeen xam seen bopp te ngeen teey rek teey rek teey te ngeen teey rek tabarkalla tabarkalla ngeen teey rek boobu moo gën même même tugal tugal dangay seet ñama fa am ci ay doom te tubaab lañu am am ko fa ci ay jarbaat te tubaab lañu te tey tabarkalla la ah, yàlla ngi leen jox barke rooxal la rek ni yooyu yëpp ci liggéeyu góor gi la ci liggéeyu góor gi la waaye tabarkalla la yàlla pour bu baax la ñu di leen ñaanal bu baax nag yàlla taxawu leen ni ni ngeen nuy taxawoo yal na leen yàlla taxawoo lu góob tabarkalla tabarkalla dinaa dem ba dama leen di ñëwantu sax waaye ayul nag waaw ayul ndeysaan ayul de tabarkalla tabarkalla ayul sax de ñu def ko noonu tey ñaan yàlla rek nag gis nga nag a ni démb sama médecin ngi xuloog man ni ma parce que doo mën a dem ci gàmbu gi li ma ndax ndaxte loo ma ko wax danga ma ko waroon teel a wax ma faj la lii def la lii ma ni ko ñaanal ma rek te nga defal ma ma dem tabarkalla tabarkalla ma ni ko ndax sëñ Babacar Si ku baax la ma ni ko ku baax la mas mas naay dem ca Cheikh Diop Ndóomóor ndeysaan ca jumaam ja eh, Pape Kouar Si merci ma bul dem mukk parce que sa malaise yii daal wóoluwuma ko ma ni ko te nga bàyyi rek ma dem mu ne ma ah man wóoluwuma ba mujj ma convaincre ko mu d'accord mais ba ma àggee dama mel meloon ni ma suma am malaise cardiaque yàlla xam na ko ma xam ni yëpp sama barke sëriñ rek la tabarkal waaye biig itam ñëpp ngi doon wax bul dem bul dem da nga grippé da ma bu ma demul àdduna tukki de parce que duma am ca barke ba kon waaye il faut que ma dem ndax ma am ca barke bi ci barkel rek sama bokk taalibe tabarkal tabarkal la ñu ngi fi tabarkal la sëñ Babacar rek la am ñu ngi toog di sol seen mbaxana yi alaaji ne loolu baax na de waaye ngeen dem màkk nag baax na ci de allah ndeysaan allah jusmaan allah jusmaan kan nee na dama aj dama aj màkk ba noppi dem ca kaaba ga ni sunu borom ñaanal ma ma bañ fa dellu seeti ndax sonn naa lool ma nu ma yow ñaanal ma yàlla ma bañ a ànd yow tourné dootuma ko def mukk mukk tub naa ko walaay ndeysaan ma ne ko metti na de waaw góor gi Alaaji Baara Sall benn nit rek la walaay ndeysaan walaay ndeysaan walaay ndeysaan moom dafa dégg ne arrêté nañ ma rek mu am arrêt cardiaque lay ndeysaan te wali yu pire la walaay ku amul morom te dëgër Alaaji Baara Sall ku amul morom te dëgër ndeysaan ku amul morom te dëgër Alaaji Baara Sall te waa kër Cheikh yaa ngoog axtaab yi ndeysaan te te te wa Nasir jëkk jege woon Maodo la te nit ñi xamuñu ko te nit ña xamuñu ko te boole ci fit xam àdduna nee na mas laaj Maodo ni ko ndax jigéen ñi sañ nañ leen liggéeyloo mu ni ko ah bu ñu liggéeyul àdduna tukki mu ni ko bu ñu liggéeyul rekk àdduna waaye dañuy seet nu ñuy liggéey te mooy nañu jël jigéen ñi ñu dem ca liggéeyukaay ba ñu tànn ci ñoom nag jigéen jëjëm ca boutique ba seetal loolu waaye jigéen liggéey ba noppi am xaalis nga bàyyi ko mu dem ca boutique ba dana ko jaay lépp moo taxoon mu ne buñ ko def mukk parce que dañ koy jaay lépp day sànn moo tax mu ne nañu wut ku leen di ku leen di jënd li mag mag mu leen di jënd li ñu ni ko mbubb la sol soxla wala musóor la ñu mu xaw demee ni li xew rek léegi ñu jëndal la indi waaye yow boo demee di nga jaay lépp te baaxul baaxul mukk maa ngi koy wax sama ñetti njaboot yu ma dajal fii ci tollu buur ñu ñu nga sollu nag ni dañ ñu invité ci waxtaanu diine ah ngay wax ak waxaat ne ah dem ci waxtaanu diine de ah. ni xam ne dem leen waaye ba ñu ko ma ni kaay wax leen man nag luñ fa doon wax ñuy xoolante di ree ma ne xamu leen lañ fa wax ña fa ko xam ndax ñooñu njum ñooñu njumbaluwuñu <laughs> ma ne déggu leen la ñu doon daanu ci suuf ni ma wax nga dëgg suñu njumbal bi rek lan doon wane ji ma <laughs> ni waay yéen seen njumbal bi njumbalu tabarujal jaahiliyati loola la <laughs> parce que bii kenn ñemewu ko ci àdduna bi ñu daanu ci suuf nag ma ni waay wàññi leen ko tuuti ndeysaan waaye ñu ngi baax waay tabarkalla tabarkalla ba tax na lool rek mooy li ci nekk ñu ne waa rek nu waxtaan ak yéen ndax daaw lan ko gëji daaw lan daaw ñaa ngi wax rek <laughs> ah daaw lan ko gëji te daaw ba ren nit ñaa ngi wax rek amin amin amin ci kattanu yàlla te yàlla boole ko te yàlla boole waaye boo wóoloo sa njaboot léeg-léeg nga gëj a waxtaan ak ñoom boo leen wóoloo rek léeg-léeg nga gëj a waxtaan ak ñoom waaye daaw daaw daaw daaw lañu ko gëje tabarkal la loolu rek mooy li ci nekk waaye sama mbokki taalibe yi itam tabarkal la seen way yi rafet na trop taali siise bi ku ku mën way la لين ليس آه. وينبني عن الطرق ليس ليس شاتت امن يمن ويتبركل amin amin amin wallaay ndeysaan amin amin yaa rabbi baax na di ñoom bëggal leen gàllaaj la yàlla na ko bëggal leen gàllaaj la ndeysaan tabarkalla tabarkalla ñu jàng fatiha bu sell jàng ayatul kursi جانغ لخجاكو جانغ قلوة جانغ قل أعوذ برب الفلق جانغ قل أعوذ برب الناس دف نيتي صلاة على النبي دوغل تي سوخلا ييب ينجبور ييك يريو ميك يباخ باخ ييك ييب يلا دفل نتي يو أي تي نيو تنبلي كبك أعوذ بالله من الشيطان Yeah.